asalaamaaleykum mbokk internet Dakar Midi gannaaw ba leen nuyoo leen siyaar di leen nuyu kenn ku si ne tur ak sant ak ñi nga xam ne ñoo ngi safoo di ñu tiitaroo ñi nga xam ne mooy Dakar Midi du leen taay dégg déggoo mën a leen eh, événement yu mag fii lay xewee tamit programme yu lay xewee ki moo toogal nag jarul présenté si mim réew ki la ñuy wax Cheikh mooy jantal Mara borom kaasi nee naa ko su waxee gars yi kontaan waaye su defee dara tamit gars yi gis. moom day seet day gis day xam tey ñu jëm ci li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique gis nañ keroog euh, li nga xam ne moom la Sénégal dóor mooy 3-0 contre Gambie mu amoon lu ma si wax bëggoon ko jël fekk na moom dafa amoon am ay ay final yu mu jëloon li nga xam ne war ko jaa jagleel ñi nga xam ne moom la seetaan ba jëm noonu la def ba jël final yi tey ñoo ñu fas waxtaan ak moom ñu jëm si li nga xam mooy mas Sénégal Cameroun waaw ah, boobu dama koy bàyyi mu nuyoo mais yéen ñiy seetaan nag fekkee bi moo sa première vidéo nga abonné Cheikh bi nuyu naa la. waaw ñu ngi ziar ba ngi ziar ñëpp hmm. di ziar kilifa diine ñoom ñëpp seen alimaam seen Babacar ñu ngi ziar ñëpp Baye Niass hmm. ñëpp la ñuy ziar waaw hmm. waaw di ziar monde entier moom soo ma laajee man dama dama siy sawar njëkkoon nañ fi def émission ma ne la Sénégal day qualifié mm, mm. man du ma wax luy daj man maay Cheikh borom kiraamay borom kaasi borom baraaday mm. lu ma la wax suba lu ma la wax da nga koy gis da ngay tëkkatéer loolu suñu borom moo ma ko may du lu may bàkkoo quoi man ma la sax man dama toog man gars yi dañ may woo ñu ma avant dara wool Cheikh ba pare wax ñu max bi nan lay ak li nga xam ne mooy combat yi nan lay demee non gars yi ñoom bu day gagné waaye da ngay dóor trois ñoom bi ñu ma woowee dem expliqué na ma expliqué na ma am na jour boo xam ne sax ñaari bii lay marqué. Mhm. maa leen dugal lool. ñu wax match Algérie bi avant mooy commencé nee naa leen Algérie du gagné day nit mhm. wax naa lool. Mhm. jamono ji moom li ma la mën a xamal mooy lenn man may borom coupe bi bi Ndakaaru jël jóg. waaw barki mooy suma neuvième coupe maa war a final waat phase régionale samedi. te si kàttan suñu borom dama koy jël. football lu ma seet takkal téere gars yi nag ñu ngi may mais instant bi nag óoragul quoi parce que sama finalu samedi bi laa bëgg a xool hmm. su ma ko lijjantee ba pare óoragul nag am na nu mu demee ma dem hmm. mais su ma gisee am na loo xam ne am na njaxas mën naa dem jàppas mais am na ñoo xam ne instant ñu ngi suuf hmm. am na mais nañ bàyyi rek yàq yi ñuy def ah, balaa ñu may yëngal waaw ah, Cheikh gis nañ euh, li nga xam ne contre Gambie suñu ay dëkkandoo ñu gagné li nga xam mooy trois heures ñi nga waxoon ne Sénégal du gagné premier match yeneen maara yi loolu wax non yow gars yi dañuy wax gars dañuy wax loo xam ne gisuñu ko lenn nag laa la mën a xam lii di football di làmb tey jii mën nga jekoo nga dem ba estat ñu gañe la football wala làmb am na ñoo xam ne suñu borom moo leen si may ñooñu ñu la si wax takkal téere yow li ma la mas a lépp da ko gis kon tey ñoom tey jour ñu ngi commencé dem di football yi football aguñu sax ñu naan coupe ay naar a koy jël ay lii man gëwuma lool maa man man gis naa si kenn koo xam ne benn maara boo xam ne nee na coupe bi moo koy si kii moo moo koy jël non kooku kooku xamul li muy wax yow saa boo gisee sama isati man chaque jour boo gisee ma isati Sénégal gagné rek jàppale day gagné soo gisee ma ma isati leneen rek xamal ne du baax te Sénégal man sama isati ñi koy fii ñëpp bari na borom directeur yi si Sénégal ñëpp ay Wally Seck ñëpp dañuy fii sama isati ay Momo Dieng ñëpp Sénégal ñëpp dañ koy fii yow xam nga ne man yow yow man yow man jamono ji li may def si football moo gën a ndaw. mais comme mais dañoo jëm si nga xam ne mooy coupe d'Afrique Sénégal moo jëloon li nga xam ne mooy coupe bi tey moo tey mu li nga xam mooy titre am tey gis nga match bi nu mu demee tey ñu war a football li nga xam mooy Cameroun Cameroun li nga xam mooy suñu bête noire tey ak lan ngay wax Massi moom nan la nar man moom instant bi moom du ma la man du ma la man du ma du ma la nëbb daara li la gën a xamal mooy instant man Cheikh Mara xam la laa wax. Hmm. xam nga damay liggéey si damay liggéey si si équipe bi. Hmm. damay liggéey joueurs yi ay parties yi dama gis nga ma sol mooy partie six. Hmm. la laa ba déggoo li ma la wax ne la man du ma waxantu. moo tax gars yi bi ñu ne Bamba Dieng dem dama la téléphone ne la Bamba Dieng day ñëw. ak lu mu mën a lu mu xat xat Bamba Dieng day ñëw force. sa waaye man du ma ñaanal nit muy taxawaalu li ma la si combat Modou Lo bi may bi may tëral saa wax. Boy Niang dama laa woo avant combat bi di taxaw ma ne saa yaa tax sax seetaanu ma ko. ma ne la Boy Niang daan naa ko bu yàgg. Mhm. su bëree day daanu bu xeexee day daanu te coup perdu lay jël Modou Lo day ànd ak moom daan ko war si kaw jëjji ko ah. te Modou Lo booy nii nii ne fii mënuñu daan Modou Lo ma waxaat la ka émission bi passé waxoon naa la ka ñii mënuñu daan Modou Lo. nan mënuñoo daan Modou Lo. Modou Lo ñii mënuñu ko daan yoruñu sax lu koy daan. ñooñu ne bu ko jox li nga jamono jii nii jamono jii laa wax jamono jii jamono jii nii Modou Lo li kay daan booy yoruñu ko mm. maa lay wax lu garaw man la Cheikh Mara almaxtum borom kaasi borom laxdëri borom tabdil du ma waxantu arais quatre heures yëpp maa sut mais ma ma foofu sax maanaam ñu delluwaat li nga xam ne mooy kàddu après doog a ñëw si làmb non déggoo li ma la man instant bii na ma lan laa wax coupe d'Afrique laay wax mm. instant bii na ma lan laa wax man Cheikh almaxtum mm. barki Seydina ma lan laay wax maa ngi si quart de finale Cheikh yaay baax di nga xalaat VAR eh, yow jamono gars yi la ñuy doxee de waaye téléphone yaa ngi fi ba may faatu kenn du ma VAR parce que man su ma jëmm waxul boo ma gisee da nga may teg a buloo meen ak li may sol nii da ngay yaakaar ne booy bi du maara quoi mais dama la bëgg man su ma jëmm man waxuma li ma àndal mooy wax instant bi ni man quart final la wax man Cheikh Mara Cheikh yaa ngi wax te jamono ji gars yi vaar nañu yàqamti yow tooguñu fan yële may la Sadio Mané day takk jabar wax nga man dégg loolu mos a wax mais xam nga man mën naa toog man loolu mos a mais ñi lay seetaan ne ko xam nga man ko seetaan kon yële la la wax waxoon nga ma tamit Bassirou Diomaye Faye day bokk. yow sa waay yow man man du ma wax luy dañ man maay borom lax dëri borom tabdil du ma waxantu man la du ma wax luy dañ maay borom coupe bi Dakaaru jël jóob yow saa boo gisee saa boo gisee may final rek damay jël coupe te pertoogu ma coupe te samedi si kattan yàlla phase régionale samedi damay jël coupe boobu. nga balaa ñu ñëw si samedi man man ni ma bëgg gaa yi xam ne instant si kan bi lañ ne kan bi ne instant ni ma bëgg xam kan masil kan contre Cameroun. instant moo dafa ëpp sama bopp. yow instant lan moo ëpp sa bopp Sénégal day qualifié wala du qualifié. man ndax dóor Cameroun laa la wax man ndax. waaw yow dóor Cameroun. Cameroun bi ma. waaw naa si réew ma mais Sénégal taa lay dugal. déggoo li ma la bi ma rey Cameroun du tey. Ah, moom lay neex ci Mor Degel mu xàllal ma ndax loolu tax ñaar ñaar dëkkandoo lañu lañu am mooy Gambie doon nañ Gambie 3-0. waaw deuxième war a am ki nga xam ne mooy Côte d'Ivoire troisième match am suñu mbokk Guinée. waaw xam naa moom Guinée après nañ si ñëwaat mais dama la ne Sénégal Cameroun nan la nar a demee match boobu laa lay wax. déggoo li ma la Sénégal day dóor Cameroun ba paan ci kawam. ñaata lay door naa si réel ma ko ñaata lay dóor. ñaata lay dóor yow bu la neexee yow bu la neexee tànnal boo xam ne mais benn jour boo xam ne. Hmm. tànnaka ni si jour yi Sénégal dix personnes yi war a jee. Hmm. tànnal kenn rek nga ne ma diw mii la bëgg ma dugal. <laughs> kattan suñu borom match noonu. ma jox ma ma def mu dugal yow tànnal ku la neex. man man naa ngaa jox Kalidou Koulibaly. <laughs> yow tànnal ku la neex rek. Kalidou Koulibaly ku la neex rek. ah Kalidou Koulibaly ku la neex ku la neex ku la neex. ma Kalidou Koulibaly laa mu dugal déggoo li ma la tànnal jour bu la neex koo xam ne day day gée si diis. waxuma si diis Sadio Mané ñëpp koo tànn ku la neex. Bamba Dieng ñëpp Bamba Dieng ñëpp. Pape Sarr ñëpp. tànnal neex dañuy waxtaan dama la ne. ñaar la nga ne ma ma taalu zone ma kari bi kuréel laa mu dugal moom nga bëgg ma dugal waaw moom rek dugal te da ngaa xalaat nag vaar masu Cameroun boobu masu ba ñaati bii si saa yi la sama cameraman jël nee na ñetti bii la trois bi am na ñetti bii kon ñetti bii dugal man Sénégal am na si benn waaw Cameroun am na si benn beneen bii bi xëccoo la ayi masi bi masi bi première bii bi di dugg si première bii temps lay dugg première bii bi bii dugg si masi bi du génne vingt minutes yi gars yi jël VAR aay man la seex maa téye football jamono jii dama ko téye nii suma loxo nii football ay njàngal alxuraanu karim mais mais jotam maara est-ce que yaay xalaat VAR man man dama wax ak yow nii man VAR laa xalaat kaa parce que da ngaa jamono ji une deux trois ñu génne li nga xam mooy VAR sa waay man bi ma la defalee kiraamay kaas yi gars yi dañ ne ma non Cheikh sëñ bi li muy defee kaas yi dafa yéex la boo di leen la benn kiraam nga ñëw ma wan la baraada bi am na beneen ab kiraam boo xam dama la koy wan hmm. ma ma mu ne ma tiit ba sama patron sax boobu man moom may borom kiraamay kiraama moom sa waay hmm. yàlla may na ma quoi ñu jógee li nga xam mooy Cameroun wax nga nu mu demee maanaam 3 la maanaam Sénégal day dóor Cameroun 2-1. bi am na ñetti bii. ñetti Sénégal am na si benn Cameroun am na si benn. waaw ah, beneen bi dañuy wut deuxième troisième bii bi la. man du ma wax luy dañ maay seex morom kiraamay lu ma wax takkal téere. Hmm. te match bi am na penalty bu si am. arbitre mën na si signé mën na ko bañ a signé. Hmm. vendredi léegi ñu jógee li nga xam ne mooy euh, match ñun ak Cameroun tey ñu ñëw ñëw match yi nga xam ne suñu dëkkandoo yi fële fu tey boobu la nar a dem. non Guinée Guinée boobu noonu match boobu noonu man match boobu gisuma si victoire. vingt zéro victoire. non non match boobu gisuma si victoire quoi. vingt zéro victoire. ah wala Guinée dañ la jël suuf fay la match boobu Cheikh. match boobu man xam man moom. man man ku ma fay rek ma liggéey la man ku ma fay ma liggéey la mais dama la gën a man Sénégal Sénégal dafa bokk si man. te man Sénégal dafa am ay jours yoo xam ne ñii dama leen di ñaanal. mais déglu ma yaa ngi sama colère ñoom du ma ko mas a changé. yaa boobu noonu. muy Pathé Ciss. Mhm. ak Bamba mhm. ak boy boy li boy li boy boy Thiès Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr fan yële au oh ma ne la maa ngi gàllem jamono yële. Mhm. pendant trois di liggéey. ma ne ak lu mu xat-xat Tottenham day football. mais mais mais jamono ji loolu dafa blessé est ce dina dina dina repêché waat. non sa du dara sa waay ji day see waay xam nga kan moo koy ñaanal borom ci laa may Cheikh. borom ndax dëri borom tabdil. xam-xam hmm. xale 28 ans la am. mais ñu pare li nga xam mooy Coupe d'Afrique bi li nga xam ne mooy euh, réew mi. gis nañ euh, li nga xam ne mooy candidature yi nga xam ne élection yi am candidature yu ñu téye am yoo xam ne moom lañ bàyyi mu jàll. tey en tant que li nga xam mooy Cheikh dégg naa tamit am ay candidat yoo liggéeyal <laughs> loolu maa ngi koy dégg Cheikh Mara am na candidat bu jigéen la ah maa ngi ciy maa ngi ciy job si suuf man moom jamono ji moom sëñ bi ñi muy liggéeyal bari na man ñi may liggéeyal moom bari na moom te man li si gën a garaaw su mbir si suuf gis nga mi gis nga gis nga musicien yi mhm. mais si booy boo xam pare si moom moom ay waxam sa du ma ko waxati. man su ma jàppee jàpp naa mais su ma bàyyi rek bàyyi na man damay ñëw la may ñëw fekk dara amu fa ma def fa dara taal la bàyyi la nga dem nag. mais booy boobu xanaa nga gis lu moom lu koy waaj a dal wala da nga gis moom nga jékki-jékki bàyyi ko noonu. non noonu kooku kooku pare naa si moom sa waay man du ma wàcc di lekkat man maay Cheikh Mara. Cheikh man bu ma la taalee xoola bu ma la taalee nii dama lay bàyyi nga dem mhm. man noonu laa mel. mais da nga am wala moom yëg na ne bàyyi man gis ko ndax mën ñu bugg ñëw tudd tur mais xam nañu carrément si diggante kook neexoo woo leen non instant moom gars ñu may oo ñoom ñëpp na man gisatuma la gisatuma man moom man man nëb man dara moom tey moom moom moom man am naa lu ma def si moom moom am na lu ma def si man man tey jii am na ñoo xam ne bu ñu ma xamee tey man du ma toog di yàq daram ko am na ñoo xam ne bu ñu ma xamee tey yàlla moom a tax mais man du ma la man moom du ma la ba dara man suñu borom moo a taal man boo xoolee man fii laa dëkk Yoff fii nii fii fii naa Limamou moo fi ne fii yonante bi man boo xoolee ni ma juddoo rek nga xam ne man man maay Cheikh borom kiraama man bi ma xëy barki Seydina Limam bi ma juddoo sama papa ñu ne suba lañ may ma war a tudde la toog ne ko diw mi yow laa koy tudde suba mu jàppay saaka jaay quatre vingt quatre vingt quatre vingt millions jamonoy saaka mu ngi jar benn seize mil kon xam nga ne rek man man su ma judd rek kiraama laa njëkk laa a def ma judd moo tax man kiraama daal mbir la man damay toog nii jekki saay rek ne booy alma kayit gi mu ñëw ma rek am ataaya ñoo leen waaw ah, tey Cheikh demal nga taay waaw Cheikh li dama gis dama gis léegi ba ngay ñëw da nga yor li nga xam mooy enveloppe bëggoon naa xam lu nekk si enveloppe xaalis la nekk wala set ba ngay bind wala lu nekk si a moo nekk si enveloppe bi ay a ah, dafa am benn waaye ma ko war a jël léegi parce que waa ji équipe nationale la ne équipe nationale dafa war a dem mooy xaar enveloppe bi dafa ay bagage dafa war a dem moo nekk nii bi la loxo bi ngay gis nii ah. waaw ma jox la bii rek yow yow baa ma jox la bii rek yow gérer sama ka loxo bi loxo bi la yow hmm? loxo bi ngay gis nii hmm. te est que xam nga ne xaatim yi mas nga xaatim bi bët waaw nga du mu bëggoon a li nga xam ne mooy bagage yi ngay liggéey nii hmm. loxo bi secret bi si na bëggoon naa xam secret bi secret bi day tijji wërsëg secret bi daal day aar doomu aadama liggéey wala góor gu góor goo xam ne saa yi lu mu laal rek day dem du yore xaaj du taxaw. lii foo yoo tukki mu gis. lii lii soo ko doon utiliser tey noo koy utiliser. lii boo koy utiliser da nga wut parfum. parfum mix ngay wut wala parfum ay nga sangoo ko. nga sangoo ko trois fois. sa waay li ma la jox nii du bagage xale sax. waaw xam baax léegi ñu ngi bëggoon ñëw tuuti rek li nga xam moom si réew mi gannaaw bañ cee maanaam tey mën nañu xam tey Cheikh tey foofu sax tey fan lay jaar. non comme soxlaa man day jël suma numéro rek numéro lay jël soixante dix cent trente six vingt trois cent onze beneen numéro bi soixante dix huit sept cent quatre vingt neuf trente et quarante bu ñëwee pharmacie Mame Diarra ci ma ooyee man dinaa mën a gisee moom. waaw moom waaw maa ngi liggéeyal gars yi ñëpp kaw maa ni ñëpp italiens yi États-Unis Allemagne te am te am na kiraa maloon bi pa manel dina dëkk boo xam ne fa am ay policiers yuñ te dëkk boobu noonu dëkk bi dina am dina am drapeau dina am bleu blanc ak étoile muy États-Unis mooy li am li xewoon démb waxoon naa dina am ay ñun fa bombardé am na wala amul am na man du ma luy dañ sawaay man lu ma la wax si am na takkal téere mm. billaahi wallaahi tàllaay instant bii ni ma delluwaat si man quart de lay laay wax Sénégal match Sénégal Cameroun bi waxuma ko sax. Hmm. quart de finale laay wax man Cheikh. waaw ah. instant si maa ngi ni may si quart de finale laa nekk nii. Hmm. avant nga may oo si nii di liggéey. Hmm. ah man ñi wax nag naar ñoo koy jël ak. naar ah? ñoo koy ñi wax naar ñoo jël Sénégal lu sori. non jaay li ñu wax noonu li ñu wax noonu ñooñu li ñu wax amul. football kaay ma la si football. football dafa doon loo xam ne football lu garaaw la. football mën nga jekkoo nii nii nii nii dem ba stade ñu nangu ko. Ama Baldé lan la doon wax bu arbitre ne prix bu ko Modou gisee mu tekki mu tekki ngembam bi arbitre ne prix Modou Lo ko mu ngi noon tey yow tey adduna tey man nga jàpp ne boo demee boo demee stade équipe bi boo ko jàppee da nga koy dóor deux zéro nga yóbbu sa deux bi boo demee moom mu nangu deux mhm. dugal la benn jël benn yóbbu la série gagné la Sénégalais ñoo war a bàyyi tey di ko concentré si ñoo xam ne ay courtier la duñu ay maara di jël di yàq ah, bopp nit ñi non ñuy def di yàq bopp nit ñi Sénégal dafa bëri ay courtier ay courtier la bëri ay jeunes yoo xam dañuy maaraa maaraalu di leen bàyyi loolu noonu instant bi équipe bi ku mën a ñaan nga ñaan nga ñaan te yàlla suñu borom tax ñun ay sénégalais leen nga ñaan pour Sénégal jël coupe bi Sénégal bu amee ndam ñun suñu ndam la nañ bàyyi la ñuy def daaw defoon nañ ci du monde bi Sénégal day jël coupe du monde anam est-ce que Sénégal jël na ko bi ma laajee la laa wax Sénégal du jël sax coupe bay jël coupe du monde mais coupe d'Afrique bi dina ko jël mais du jël coupe lool mais ñoom nañ bàyyi si ñoom dañ koy def pour jéem a yàq bopp gars ay boy karamba xaw maa ngi dégg mu day jéem a génn dafay émission xaw ma da lay xam-xam kenn du ko forcer xam-xam da ngay juddu xam-xam daa bëri façon am na ñoo xam di leen dem jàngi xam-xam tarbi ko am na ñoo xam ne tey li nekk si ñoom suñu borom moo leen ko may man mi ngi gis li nekk si man suñu borom moo ko may du ma bind xaw ma sax ni ñuy bindee du ma fende du ma bind xaw ma ni ñuy bindee mais xam a kan laa dul gis am néew bu faatu man nit ku deese nag xet gi damay xeeñ dañuy taxaw ma ne la diw mi day faatu. mais gis moom gis nii gis ak nit ni wax lii ne si moom. ak liggéey ma si liggéey la jox nit mu sangu. gis wala passeport wala tukki wala dara. suñu borom dama may si loolu. mais mais mais Théo daa ça yow da jël tiré leçon si li nga xam mooy Karamba. waaw yaa tudd tur. waaw maanaam da nga jàpp ne moom courtier la ak ñeneen mara yi nga wax ne Sénégal lu dem fenn. non ñooy courtier lañ ay courtier lañ ak nit tey da ngay wax li nekk da ngay wax li si yow man is xam ne gars yi code ma leen jox ñuy jàpp am na si kawman yi ne Allemagne États-Unis code yi ma leen jox xam la lañ wax dañ ne ma booy barki Seydina Limam maaraay na fi yaan man am na si ñoo xam ne saa yi loolu yëkki ay trois cent mille quatre cent mille di leen jox benn mas duñ ko jàpp yow gis nga gars yi ma leen jox ñu koy jàpp ma koy isati mhm. ñu ne ma booy barki Seydina ndaanaan nga Coupe d'Afrique da nga war a dem mais mhm. instant bi dafa am si su ma paree si match yooyu mën naa ma dem mën naa ma toog maay toog fi daal liggéeyal Sénégal su ma xëyee suba dinaa tëy suma course su match yi jotee su ma zori ay ñoom Bamba ñooy Paris Six Pa Matar Sarr dinaa génne lay sarax waaw ñoom dinaa génne sarax mais match yi daal maa ngi si quoi maa ngi liggéey mm. mu ngi mel daal instant yi daal maa ngi ko mu ngi mel instant yi daal maa ngi ko di eh, ah, bi nga xam mooy match bi match match lañ jëm mooy pour contre euh, ki nga xam mooy euh, Cameroun te ñu bëri ne Sénégal du sori maanaam taxawaay équipe bi baaxul te lan ngay wax ñooñu ñooy taxaw ne Sénégal du dem fenn. gars ñooñu li wax noon amul xam nga la moo tax amul sénégalais ñoo war a yeew ñu ubbi seen bët bu xalaat di xalaat la lañ fexoon Sénégal équipe bi naa rek koy jël équipe yi jëloon favori kan moo si gagné. xam nga boole ñoon sax Sénégal favori. Hmm. équipe yi ñu boole ay Algérie équipe yi ñu boole favori est ce que gagné borom mooy ay mbiram di programmer hmm. fii yàlla moo fi ne. ñun tey lii ne si ñun suñu borom moo ko def si ñun mais gars yi nañ bàyyi di déglu gars yi ñuy yàq xeli gars la ñoom li ñu wax ak suñu borom li mu def ça fait deux bokkul bokkul ñoom tey dafa a équipe yi ay équipe yoo xam ne nañ nekk say tolof tolof mu ngi mel ni mu ngi mel ni Algérie Algérie daa ne say tolof tolof waxoon naa la Algérie xam nga la ma ko topp hmm. bi muy gagné senegal final boobu da ko hmm. day am si nawetaan day am si football hmm. forcé ba si làmb day am si làmb loolu moo daal Balla Gaye Balla Gaye pour mu daan mbër problème la saa dama lay wax ne damay liggéey si football di liggéey si bëre di liggéey si lépp mais naaguma laal dama lay dama lay wax adduna nga xam ne man waxi nit laa lay wax. mais yaa ngi loolu moo ko dal. loolu loolu moo ko dal Yékini bu doon fii ba suba du daan mbër moo tax mu bàyyi jamono ji looloo dal looloo dal Balla Gaye instant yii dina jéem a ut xaalis rek mais du daan mbër. mais mais ñoo ngi ko bëgg a xam mooy Tapha Tine. déggoo li ma la Balla Tapha Tine dañ ko samp mën mu ko si mas ay mën mu ko a ko waa bool dañ ko samp mooy daan ama seen man mais kenn du ma vaar xam nga kay la may vaar xanaa ma tëdd biir bàmmeel ma ay wax ne maa wax lii mais tant que maay xool nii di di gis hmm. gars yi ah. parce que man du ma ñëw rek wax xam am na maanaam da ngay ñëw dëkk dëkk ay micro rek ñu commencé lekk ginnaaw bu si waaye Sénégal da mooy gagné Barça Real la wax. Real da ka surprise day am. Mm-hmm. mu dóor ka ñaata kat ñaata. bi nga gisee samay sa surprise day am. Mm-hmm. loo gis saa man man football du ma si waxantu waay man man sa waay yow man man football na ma waay. Mm-hmm. kon jamono ji daal man sama xel mën naa daal si équipe nationale bu Sénégal. déggoo li ma la man équipe bi dinaa leen jàppale te yàlla suñu borom tax parce que lii ne si man suñu borom moo ko def si man te man sénégalais la. te dereti Sénégal gii mooy mooy daw suma yaram deret gii. saa ñu ne lébu lañ ay lébu ñun. dañ gëm suñu boppa duñ sàcca du soxlaa ñu alali jàmbur mais yàlla may nañ ta fii maam njëre moo fi ne fii sëy naa limaamu ñoo ne fii yow fi nga toog nii rek yow fii rek fii fi nga toog nii rek fii rek daf bayal bi rek dafa garaw hmm. bayal bi ngay gis ni dafa garaw man nga jekki saa dox sa golo téela nuyu la te doo ko xam <laughs> lu garaw laa la man nga jekki saay rek golo ne la sa waay ça va hmm. <laughs> lu yéeme de lu garaaw laa la say bët nga xool de hmm. am na ñoo xam ne fii mën ngeen teg ay nit ay te man da man su ma su ma cinq jinne ñu ngi toog fi mais doon gis am na ku la séq te doon gis de pour yow man kasee toog hmm. cinq jinne ñu ngi fi toog ñi ngay gis ni ñu nga yaakaar ñi ay nit la ñi du ñi ngay gis ni ñi ñi feeri nit ngeen ay nit hmm. taxaw ni day neen lu garaw laa la man nga jekki saa dem sa golo ne am ça am na ko waxoon am na ko waxoon émission boobu ne ne na waaye jinne xaw ma lan lan bon sa yow gars yi dañuy wax rek xam-xam xale vingt huit ans la am. ñi wañ nañ na lekk kaas ku si yow ñaatoon lañ toog nga jox ma kaas ak soow ñaati nit lañ poisonné si loolu. sëy ñaati nit ñooy sëy ñu si loolu. defal leen kaas boole leen soo joo leen ñu ñu ñu dee yow ñaatoon lañ toog ma ne defal nga def njar ak kaas nga dëb ba mokka man naan ko ñu continuer di waxtaan. Ah, yàlla nag mooy may quoi suñu borom mooy xool li ko nee rek mu may ko jàmm yow nag da ngay nangu parce que boo nangul da ngay sonna te Cheikh Mara suñ borom taal nag li yàlla xam nga la moo gën a métti ci àdduna yàlla ne waaw nga ne fi di forcer naan déedéet déedéet man gars duñ ma gaa vaar loolu ragaluma ko am na émission yu bëri jamono jii nii la gars yi chaque jour ma émission ma bañ mais yow manuma laa bañ xam nga la moo tax yow su ma nit nga quoi yow su ma nit nga suma xarit la mais gars yi fan yëpp dañ ma yow teg nga si bët buñ ma émission rek ma bañ démb ba léegi la mu ñëw Cheikh doo si mas yi ma bañ Cheikh Mara mas yi ma bañ naa defal émission te yàlla tax parce que suma su ma gaan maa yow dañoo am kóllëre man man nit du ma defal lu baax loolu duma ma ko wax ñu lay lébu lañ comme tey yow boo ma woon émission àllaaxira damay ñëw bu ma dee sax damay dekki nga defaat émission loolu du problème est-ce que yaa comprendre li ma hmm. yow gars yi yow gars dañuy gars dañuy sóob rek hmm. barki yàlla gars yi dañuy wax gars yi dañuy sóob billaahi wallaahi taalaahi gars yi dañuy comédien rek Euh, sénégalais yi nañ bàyyi di di concentré si yenn maanaay ñu yàq seen xel nañ bàyyi loolu quoi mbokk internet yu Dakar Midi gannaaw waaw ñu toogee waxtaan li nga xam mooy Cheikh waxtaan si li nga xam ne mooy euh, kaan bi waxtaan si li nga xam mais kii mere naa ko trop Aliou Cissé suma sœur bi Mamadou Fall d'accord oo Mamadou Fall kan Mamadou Fall d'accord oo parce que Mamadou Fall sa waay mais jour la jël fi mu nekk la ne Turquie dafa waroo. mais Cheikh nag ñëpp mënuñu. moo dàq mais moom moo dàq dugal gaay yi. ah barki alxuraanu karim ngelaw sa da koy dugal. mu fal ay yow. war na waroon naa ñëw wax bi booy bii mu dugal démb noonu booy vingt cinq bi. Hmm. mu fal day dugal lu raw lool. donc nag na bàyyi muy def quoi na bàyyi gaay yi di ko jox xaalis si suuf mu jël gaay yi na bàyyi loolu. Hmm. man xaaral loolu moo tax ma mer ne dew ma dew ma Coupe d'Afrique loolu bokk na si lii lii gën a tax ma mer ne dew ma. ma hmm. jëlee fan démb sax mu mën a waan sëñ bi ñëwal ñëwal dem ma wooye ci guddi gi noonu après mu ne ma am na benn bële sax bu la war a jox benn mayo boole naa ko moom mooy mayo bi yow dama jëli mayo bi rek après si nga ñëw gàlle noonu. nga def li nga xam mooy sa dernier kàddu. waaw mooy maa ngi ziar gars yi ziar ñëpp waaw ziar ñi may dooleel. Mm-hmm. ziar Sénégal gépp sant yàlla suñu borom bu baax. Mm-hmm. waaw xale bu ndaw laa quoi. Mm-hmm. waaw l'essentiel daal gars yi maa ngi leen liggéeyal. ñii maa ngi leen seetal maa ngi leen nit daal man daal masuma masuma fen nit. ñi ma ku ma ku ma moom si kattan suñ borom da nga koy gis mm-hmm. masuma triandé doomu aadama bi ma ootee ba léegi mm-hmm. waaw bi ma ootee deux mille dix ba léegi daal mm-hmm. masuma fen doomu aadama ñi may liggéeyal ñëpp dañ gis ba ren li ma waxoon toog gars yi def naa ko jëlal naan seen i coupe instant bi mooy suma neuvième finale si kattan suñu borom damay jël coupe bi te waa ji si kattan suñu borom dama koy dóor su ma paree nag si finale samedi bi ma concentré si coupe d'Afrique man Cheikh kon baax na kon gis ngeen li nga xam ne moom la Cheikh. waaw tey tuuru maam mhm. mooy tuuru dëkk bi. Mhm. loolu bokk na sax li taxoon ma gën a xat. Mhm. appel gars yi du ma jël seen i appel. gars yi ñoom dañuy yaakaar ne sëñ bi man gars yi dañ ma comprendre quoi. dañ naan sëñ bi dama koy wax téléphone du jël. xaalis neex na xam naa appel bu ma jël rek dama am vingt cinq mille seet. man ñu may woo bëri nañ. waaw man appel bu ma jël dama am que man ma jëlee appel sax da yaakaar ne appel bi yor fi tey la. parce que baa ngi di ñëw. appel bi gaa nañ ma comprendre mm. man day fekk ma jàpp mm. man tey xam-xam bi ne si man ni utuma xaalis mm. man tey bu ma commencé bu ma la commencé liggéeyal yow damay bàyyi ba liggéey la pare ma doog a jël benn appel moo dañ naan sëñ bi la jëlatul appel dafa yëg succès mais demeewul noonu ñu nay leen une façon xaalis bi dañ koy gis mais gars yi ma comprendre te fan yi dañ noonu suñu tuuru dëkk mooy tuuru maam Njere te cosaan la fii mooy suñu dëkk maam Njere mooy ñu mam tuuru mi jàll na démb te yàlla def na si xéewal géej après yàlla na xéwal bi yokk jën yu bari jën jën yi seen yekki saay di génn di teeral seen bopp gars di ko jàpp di ko jaay parce que kattan suñ borom sa loolu day am euh. man maay borom kiraama yi euh, Cheikh gannaaw loolu ñu nuyu bu baax a baax a baax ñu nuyu di leen jaajëfalaat bu baax a baax euh, Cheikh borom kiraama yi lañ dalaloon fii nga xam mooy Yoff fii nga xam ne fii la cosaanoo saa su waxee nag gars yi bàyyi ko xel waaye saa su defaree nag gars yi déglu ko ndax li muy wax yëpp da gis nee sëriñ yeneen sëriñ duñ benn Barça ak Bambey du benn sama équipe bi dañuy tey Mali yàlla na yàlla may ndam Mali ah. sama xarit la sama lépp la moom dafa xat jamono ji moo rax fan yëpp mu musoon sax ne dafa duggoon xalwa moo fan yëpp ma gëjëm moom dafa moom émission di ziar ñëpp nag képp koo xam ne équipe technique bi yëpp ak ñuy fekk fii nii fii yëpp yëpp dañu leen nuyu di leen ziaraat bu baax di leen jox di jage ba beneen incha allah jaa ngeen jëf